dañuy nekk ci àddina bëgg di dund mbégte kese mënul a nekk nekk ci àddina doo am benn problème mënul nekk nekk ci àddina tiis du la dal mënul nekk nekk ci àddina sa yaakaar du tas mënul nekk nekk ci àddina kenn du la lor mënul ne nekk ci àddina kenn du la war mënul ne yooyu ak àddina ñoo ànda moo tax borom xam-xam bi naan lan une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue si noflaay rek ngay nekk neexul sax kon yooyu mooy àddina yàlla de alterne mbir yi li neex ak li naxari nga koy gérer waaye nag jullit bi gàttam xel mooy jullit bi nga xam ne mu ngi si jamono bëgg moom lépp lu mu yóotu am ko lépp lu mu bëgg jot ko bëgg du am benn souffrance mais loolu mënul ne loolu képp ku koy bëgg yaa ngi bëgg l'impossible mënul ne te yow li ngay fàtte encore une fois mooy yàlla moo la moom yàlla amul pour xool say bëgg-bëgg lan la yàlla amul pour obéir la yow yàlla amul pour topp say bànneex yow yaay topp ci ginnaaw mais moom du topp ci yow ñàkk comprendre loolu nag moo ñu jural li may waaj a wax muy léeg-léeg jullit bi toog ne ah pourtant man maa ngi jaamu yàlla maa ngi julli comme il le maa ngi natt asaka maa ngi sonn lool ci yoon yàlla waaye xoolal maa Ibrahima mi nga xam ne ab kàccoor la lijjantewul yàlla lépp lu yàlla baj mu nga sa lépp lu yàlla digle du ko def te moom pourtant moom mu ëpp ay xéewalu yàlla kenn ku si nekk suñu le plus souvent di nga dund la nga xam ne laaj boobu di nga ko laaj sa bopp muy beneen laaj bi gën a grave muy le fait le fait que nit di toog naan pourquoi mois et par les autres ngay toog di laaj sa bopp naan lan moo tax man yàlla teg ma lii bàyyi ñeneen déjà rek bu ñu ko tegee si am xel yàlla amul pour justifier wu lu ko neex lay def buur la chaque jour ma ne ñun suñuy alal lu ñu neex lañ ciy def ku si nar a wax ñu ne que téye si sa làmmiñ parce que lii sama yëf la a ciy def lu ma neex mais ñun jëfu yàlla lañu kon ni tamit lu ko neex lay def suñun amul excuse bu muy joxe léegi nag pour tontu ci li ma wax léegi muy yow a Ibrahima mi nga xam ne yaa ngi naan jërëjëf yow maa Ibrahima mi nga xam ne yaa ngi naan. lan moo tax yàlla teg ma lii bàyyi bàyyi ab laay mais yow laajal sa bopp déjà la question de savoir est-ce que bàyyi ab laay li buy defal yàlla yëpp yow yaa ngi koy defal yàlla beneen bi mooy yow est-ce que li la warloo si diggante ak sa borom yëpp yaa ngi koy matal bay réclamer dara parce que ñun ñoo koy wax ñun ñëw naan nit ki avant ngay laaj say droit dangay def sa devoir ba pare est-ce que ñun ko suñu devoir suñu diggante ak suñu borom matal nañu ko kon est war nañ ko laaj ay àq ak ay yelleef koo laa laaj ak ak yelleef da ngay matal li la war jëm ci moom waaye est-ce que matal nañu ko waaye nag sax loolu yëpp dafa dafa gudda mais xoolal boo bëggee xam génnal ay ca mu ngi noonu waa ah. esprit Gossas TV ki nga xamante nii lu mu jàllalewul baaxul